mbokki internet yu africa global express tv dal len ak jàmm ñu dik ak yeen ci xibaar ñeel walum tagat yaram ginnaw ballon d'or bi nga xamanteni nak nag jamono jële Sadio Mané dal dina ci yëkëti ay kàddoom ballon d'or bobé nak ki nga xamanteni mom modi Sadio Mané mo ngay xamle nak dal dina ki di Karim Benzema te nekk fële nga xamanteni mom modi ci Real Madrid moom nag daal dina xamle ni koké mo dal di nek favori bi ci waxtu bobé nak jàpp ni ki di Sadio Mané mo ngay xam nak dal ne ballon d'or France bobé nga xamanteni nak war nañ ka jébal ki nga xamanteni xamante rek moom moo di Karim Benzema mu daan moom nag moo ko daal di gën a mérité woo ndaxte daal di def ab saison bu mucc ayib fële ca Real de Madrid waaye tamit daal dinay nay gagné lii di Ligue des ginnaaw bi loolee nag Sadio Mané mu ngay xam ne ni moom place ba nga xamante ne daal nañ ko koy jox muy ñetteelu place bi loolee daal di nekk ab fierté ci moom ginnaaw bi nga xamante ne moom daal di nay gagné li nga xamante ne moom moo di Coupe d'Afrique des Nations waaye tamit nee na loolee nekk na sax waaye tamit nekk na tamit honneur bu rëy ci moom ginnaaw bi nga xamante ne nag ci réewum Sénégal daal na ci nekk ab ndam waaye Sadio Mané daal ne loolee ndamam la daal di gën a doon ndaxte nag coupe d'Afrique bi nga xamante ni gagné nañ ko muy bu njëkk ak équipe nationale loolee ab fierté la ak moom mooy xam ne nag daal ne kii di Karim Benzema daal dinay mérité li nga xamante ni rek moom moo di ballon d'or bi ndaxte nag jàpp leen ni moom daal dinay def ab saison bu mucc ayib fële ci Real de Madrid waaye tamit daal dinay gagné di Ligue des Champions ca waxtu boobee nag ki nga xamante ni rek moom moo di attaquant sénégalais bi ca Canal Plus la daal di def boobule entretien mooy xam ne nag daal ne classe classement boobee moom amul dara loo xamante ne nag mu ko ci naqarlu parce que classement boobee lañ ca teg lépp rek ci ab logique ko daal di tekk jàppale ni nag joueur Bayern bi di Sadio Mané moom daal dinay am ñetteelu toogu bi ginnaaw bi nga xamante ne nag classement boobee rek daal dinay génn kii di Sadio Mané moom moo daal di nekk ñaareelu joueur africain boo xamante ne rek daal dinay am boobule a ginnaaw sacre ba nga xamante ne nag George Weah jëloon na ko ci atum 1995